فلا تهيا على الفلاح قد قامت الصلاة jigéen mooy soxna Aminta Bousso soxna Aminta Bousso doomi Serigne Bousso bi ak Xaadimal Moustapha moo doonoon ñeenteelu xalifa bopp Seexuna Ahmadul Xadim moo daan jiit ji gannaaw sëñ Fallu yi jiite na jumaay Tuubaa ji téeméeri ajjuma ak ñeent fukk ak juróom benn yu ma xam mille neuf cent quatre vingt la fi bàyyi ko ndax moo sëñ Abdoulaye fukki weer ak benn rek lañu rawaate waaw fukki bee rek benn rek la am ci xalifa bis bi moom ci jàng alxuraan ak xasaay rek ak beerde ci loolu rek lañ koy dullale mooy képp ku fi ñëw rek ñu ngi ñaan sa borom loo fi ñaan rek sa borom defal la te yaakaar nañ ne nag lu fa ay ñaan danga ko am ci aw yiw waaw loolu xam nañ ko ci moom ndax ku ma saa jaaxle boo demee fa moom rek bu la ñaan lee sa aja faju na kon nag ñu ngi ñaan ku fi ñëw rek luy sa aajo rek yàlla na ko sama borom faj ci la yéen tamit Sëriñ Tuubaa ci barke Cheikh Abdou Khadre